أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu mbooleem sénégalais yi fu ñu mën a nekk di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi ngeen ñëwaat ànd ak seen mbokk imam Dramé ci xew-xewu jamono di nuyu kilifa diine yi di nuyu bu baax sëriñ Muntaxa Mbàkke xafisahullahu wa ayyadahu wa nasara ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi waaw yàlla bàyyi ko fi tey xew-xewu jamono bi ci mbirum Bougazeli lañ fas yéenee waxtaan mbirum Bougazeli incha allah mais ñu ngi ziar bu baax xalifa généro yi waaye nag particulièrement ñu ngi nuyu sëriñ Muntaxa parce que déglu nañ discours am bi mu def te jàpp naa ni discours la boo xam ni rassuré na képp koo xam ni jullit nga parce que kilifa loolu la ñuy xaar ci moom bu ñu demee ba nit ñi jaaxle nga delloowaat ni naan nga rappeler nit ñi à l'ordre te loolu moom la def kon ñu ngi koy ñaanal yàlla dëgëral ko bàyyi ko ci sunu kanam sëriñ Muntaxa xafizahullah waaw parce que rôlu rôlu nitu diine mooy bu naree tàkk nga fay waaw loolu mooy rôle nitu diine de politique mooy kuy politique nga politique mais nitu diine moom yow waroo seetaan muy tàkk waaye boo gisee muy tàkkit war war nga ni lii nag buñ ko bàyyiwul ci tàkk la jëm moo tax lii may waaja a waxtaanee dafa bokk ci li na li nga xam ne mën naa taal réew mi ëllëg mooy mbiru Bougazelli mbokk yi mbiru Bougazelli dama bëgg ñu dégloon seen ci tuuti rek ñu ñu ñu weccoon teñ ci xalaat tey dañu xëy ci journaux yi dégg ñu ni Bougazelli may nañ ko liberté provisoire te mbokk yi Bougazelli dafa bokkoon dafa nekkoon koo xam ni dañ koo jàppoon maanaam ci xaalis bu bon xaalis boo xam ne baaxul faux billet bu ñu nee faux billet mooy xaalis boo xam ne day daaneel économie économiste yëpp dëppoo nañ ci ni li gën a gaaw pour daaneel ab économie réew mooy xaalis bu bon ñu jàpp ci Bougazelli ñu koy wax Seydina Fall alliance Bougazelli li ñuy wax loxo ci poos lañ ko jàpp loxo ci poos ñu ngi ci remercier bu baax brigade recherche parce que loolu tamit jar na jar na ko nit bu defee lu baax nga ni baax na lu am solo la kon ñu ngi leen ci félicité ci liggéey boobu Bougazelli moomu nekk koo xam ni dañoo war a taxaw ci ay mbiram parce que Bougazelli c'est pas n'importe kii ci réew mi dafa bokkoon ci ñi collaboré woon ak président Macky Sall bi muy jël réew mi bu dul collaborateur numéro deux di trois wala quatre maanaam doo ko génne ci cinq yi man bokk bokkoon ci ñi ci gënoon a jàmbaar xeex ba Macky Sall falu nekkoon ab député waaw moom lañ jàpp ci mbiru faux billet jàppin woo xam ne dafa leer parce que léeg-léeg sax ñu jàpp nit mu xaw a am lëndëm wala yu mel noonu jàppin wu leer mooy loxo ci poos ñu xëy rek dégg ci journaux yi ñu ni bàyyi nañ Boughazelli mbokk yi ñun jànguñu duñu ay avocat mais jàng nañ droit tuuti te ay sénégalais lañ di yor suñuy xel nag di xalaat nekk ay citoyen bu ngeen fàttalikoo ku mel ni Khalifa Sall biñ ko fi jàppee nga xam ne moo nekkoon ans moo nekkoon ancien maire Dakar ñun ñëpp ñu xam ko Khalifa Sall biñ ko jàppee dafa demandé woon liberté provisoire ñu bañal ko ko mu àggoon ci sax ni day joxe caution waaw bu ngeen fàttali ko ñu bañal ko ko te Khalifa Sall ku ne xam na ne mënul woon a daw. en tant que maire Dakar du daw parce que liberté provisoire daf ci bokk mooy bu ñu lay bu ñu lay bàyyi buñ lay bàyyi ñaari condition yi daf ciy am solo mooy mu nga garanti juge bi ni yow doo daw ñetteel bi mooy nga yore feebar boo xam ne jàpp nañ ni bàyyi la ci kaso bi risque la ñaareel bi xëy na ak yeneen i raison mais yii moom daf cee am solo te Khalifa Sall moom ñëpp xamoon nañ ni du daw mais ba mu ñaanee euh, liberté provisoire dañoo bañ. bu ngeen fàttalikoo bi boo Bourgi nga xam ne nekkoon na collaborateur Karim Wade moom biñ ko jàppee dañ ko doon teg ci barankaar muy ñëw du wuyu si juge bi bu ngeen fàttalikoo loolu fi la fekk yooyu boo gisee ñu koy fàttali ay historique la yoo xam dafa am solo ci context bii ñu nekk kon bu ñu xëyee ñu ni bàyyi nañ Bougazelli ñu ni nax dafa feebar ci li ñu wax wóoruma bu dee ci li ñu wax ndax même bu fekkee ni dafa feebar wala dañoo wax ni dañoo am dut ci am dañuy am dut ci moom yooyu yëpp pour man doyul man boog doyuma ci Bougazelli am liberté provisoire Bougazelli yow yaa war a yow nit day gore parce que Karim Wade biñ ko fi jàppee malgré coow li bari woon na mais tëdd na ci kaso bi tëdd na ci kaso bi gore dem tëdd ci kaso bi te lañ ko doon jàppee dañ ci doon laam-laamee xalifa sàll mbiram leerul ba tey ci bopp sénégal yi dañ ci doon laam-laamee mais dafa goree dem tëdd ci kaso bi yow même buñ la mayee liberté provisoire yow yaa war a bañ sa ngor moo war a tax nga ni man bëgguma liberté provisoire naa dee ci kaso bi parce que liñ may toppee kenn du ko toppee as gor mbokk yi réew bokk na ci liy taal réew te réew yu tàkk yu bari ci àdduna bi moo ko taal mooy justice de vitesse te loolu wala justice bu ñuy manipule baaxul ci réew waaw te Sénégal dafa nekk réew moo xam ne ñi fi dëkkee ay boroomi xel lañ di boroomi xam-xam nit ñu moom seen bopp fas yéene nekk ay gor fas nekk ay jullit faatu ci lislaam loolu lañuy ñaan yàlla te gor ak jullit mooy ngay wax dëgg te yàlla tax lii dëgg mooy Bougazelli condition yi ñu ko bàyyee leerul ci bopp sénégalais yi war nañ koo wax mu leer waaw justice bu amul ci réew rek réew ma day réew ma dem na ci kaaw mbokki boo gisee alquran yàlla di wax ci benn aaya ni yaa ayuha alladina amanu kunu xawaamina bilqisti shuhadaa lillah walaw ala anfusikum aw ilwalidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima loolu alquran la yàlla nee na hoo les croyants observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne. Fils contre vous-même, contre vos pères et vos mères et proches parents, qu'il s'agisse de riches ou de besogneux, Allah a priorité sur eux deux et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Bon, justice le doxal hein. même bu faites ni mbir mi dafa dal ci sa papa wala sa waajur wala ki le gëna a na loi bi dal ci parce que nit ñi tey nee naa la crise bi gën a bon ci crise yi mooy crise de confiance nit ñi buñ fexe bañ am crise de confiance seen digganteeg justice bi loolu li muy yàq ci réew mi day bari mbokk yi Sénégal réew la moo xam ni ñi ko yoroon dañ ko sàmm ba mu agsi fii kon yéen ñi yor réew mi da ngeen jël seeni responsabilité ngeen continuer sàmm réew mi parce que yéen ëllëg lu mën a xew yéen lañ koy laaj te Sénégalais yi ku yaakaar ni mën nga leen a nax sa bopp ngay nax yi am ni yépp tey li ko waral mooy crise de confiance askan wi gëmatuñ politicien gëmatuñ lu bokk ci politique parce que ni ñuy manipuler politiciens yi ni ñuy manipuler nit ñi ñun nag sunu devoir mooy ñu wax fi ñu war a waxee magum xamoon naa ko magum waxoon naa ko moo gën xamoon naa ko te lii raam ci ñag bi la jëm ñun waxuñu pour ku kontaan ak ku mer ku mer sa affaire la ñun dañuy wax ngir yàlla mu muutu bi ghayzikum ku mer deewal ñun waxuñu pour kenn kontaan wala mer dépassé nañ loolu opinion bi moomu ñu ñu ñun dañuy wax parce que li ñuy wax loolu lañ gëm opinion bi bu leen neexee ñu jugé ñu parce que jugé nit te xamoo ko loolu sa affaire la mais ñun li ñuy wax loolu lañ gëm réew mi nañ seetaat justice bi niñ ko yoree baaxul bu gaa zali amal ngor nga dem tëddi kaso parce que yow kaso nga mérité waaw إن أريد إلا الإصلاح وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته